démb mom match bi yombutoon ndax so xolé euh, on a raté beaucoup d'occasions de but donc si première mi-temps bi to aussi Nigérians aussi ñewon nañ développer sen jeu may ñu woon dara ñun aussi tamit on n'était pas lucide devant les camps jour yi dañu manqué won de lucidité ndax lu ñu raté si ay occasions bari na trop trop trop euh, loolu moom moo ñu gëna a euh, handicapé si match bi donc Nigérians aussi gëm né war nañ mëna a donc yëlu ndam li mais je pense que le nécessaire a été fait ndax boy yi amoon nañ benn prise de conscience xam lu len doon xaar ba fexé nañ ba lijjanti qualification bi ta foga nan loolu c'était l'essentiel quoi pour ñu mën dem mondial Mexique. Wa xam nga Sénégal mom foog naa ne marsam yépp amul benn bu si yomb ndax so soo 3e mondial so ñëwee coupe d'Afrique ñëpp lay xaar kon ñun euh suñu benn match du yomb surtout tay bi nga xamante si dañuy tassé pays organisateur bi mi Libye. kon match boobu xam nañ ne du yomb ndax soo xoolee démb rek sunu match bi xawoon na xawoon na difficile ndax arbitrage bi amoon na problème surtout tey nañ xaar côté arbitrage bi dina am problème ndax pays organisateur moom dañ def le tout pour jàppale ko mu egg fenn fi mais foog naa ne coach yi encadrement bi ñëpp waxtaan nañu ak joueurs yi xam na leen donc du yomb mais dañu war a def le maximum pour sauver honneur bi sauver honneur bi nag mooy fexe dóor ndax ñun xam nañ équipe bu ñu yor.

ban nañ ko dañ leen toggal añ communauté sénégalaise bu nekk fii moo leen toggal añ donc pour éviter yëpp toggal leen añ pour ñu mën ko añee suñ demee indi ndam li mu jeex foog naa ne jël nañ disposition yëpp daal pour euh, mën a dem final incha allah.